est-ce que carte yaa nga fa parce que intercoalition bi moom moo amoon ñaata 48 pour cent quelque chose du genre le PDS braqué même si je le considère comme benn coquille vide mais euh, mooy loolu Khalifa euh, ak la mu àndal dem na duyalité bi dëgg dëgg dëgg dëgg c'est le Pastef et le pouvoir te jusqu'à présent man kenn laa gëmoon ni bu bokkoon ci élection bi da koy jël dès le premier tour muy Ousmane Sonko mhm. nii nii nii nii nii nii je ne peux dire que personne ne peut aller au premier tour nii parce que bul fàttee Abdoulaye Wade am na benn jour dafa romb euh, Macky Sall candidat ci jet d'eau. <laughs> ko ree. Bourguiba <laughs> ñetti saa waay ay ñetti nit xale ya ak mu nga xale ya <laughs> non il avait pas. Ah, mais jour vingt euh, vingt sept février 2012 ngoon. mais mais saa fu mu jaar. kenn comprendrewul du coup élection dafa doon loo xamante ne. Eh, parfois

fan la président Abdoulaye Wade jaar. gars yi ne ay ay ay junneem wala. si <laughs> ku doon ku doon ku doon ku doon directeur campagne Abdoulaye Wade. mais eh, eh, est-ce que du Souleymane la. Macky Sall Macky Sall Macky Sall oui Macky Sall. qui après mu dem mu dem législative. Mhm. jiite liste ba euh, kii xam na euh, <laughs> il il il il il connaît du coup affaire bi du du lu ndaw rek du rey jéggi comme ni ko gars yi di jàppee noonu. Mhm. bëgg a euh, suufeel kii bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy l'opposition. notamment la coalition Diomaye euh, président nanu xam ne euh, mayage bi ñu war a mën a def sur le plan territorial secteur par secteur compartiment par compartiment bu ñu ci xeebee dara dara dara dara waa ji day jaar seen kaw dem parce que Amadou Ba njàccaar la encore une fois je le dis et je le ni mu def appel kañ la ñëw appel du 2016. yàggul fekk fa gars yi nga xam ne 2008 lañ commencé raak. Thérèse Faye ñu jiñ ko fi coup d'état président war ji doon na ko sax coup mm-hmm. d'état tëj leen fi andi les fans club du leen fi problème yu dul jeex Amadou Ba ñëw 2016 téye parti bi. Mm-hmm. loolu loolu loolu ku ko ku ko ku ko mën euh, du cooma ndawul. alors euh, Thioro bu ñu ñëwaatee un peu si si si euh, Thierno Alassane Sall bi nga xamante ni bokk na si candidat yi fës tey si seen seen seen i discours si campagne bi nga xamante ni débuté nañ ko. corruption tudd nga sànq ay milliards Amadou Ba euh, moom bokk na si li nga xamante ni moom jàpp na ni mooy li njëkk si la ñu war a xeex si réew mi fekkee bëgg nañ delloo euh, delloo foofu euh, Ayoba Pa Pa Boussa ñi ngi wax ni discours kase wala programme taxul falu Sénégal mais doon na loo xamante ne mën na grignoter si électorat bi. bien sûr. parce que boo dee xool ni ki démb ak tey ni ñu fësalee yenn ci programme yi da ngay xam ne programme euh, sénégalais yi ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax sur ce euh, damay wax ni est-ce que man ak Pa Assane ak Pa Moussa ñoo bokk sénégalais yi nga xam ne tey jii ñu ngi leen di gis par rapport ak seen mental ci li nga xam ne moom moo di élection et tout man je me dis que euh, fi ñuy waxee ci Amadou Ba ak caay-caayam ci wàllu politique ak yooyu xëy na ci giiru politique gi mu bokk la ci régime bi nga xam ne la bokk la parce que su ma euh, wëyee sax di des ci Amadou Ba mën nañu ne xëy na euh, personnellement damay kii ci moom wala wala yu ni mel mais bu ñu fàtte ne aussi Amadou Ba euh, ci régime bi la bokk tey régime actuel bi régime actuel bi li sénégalais yi li leen naqari ci seen xol lu bari bari ñoom ñoo leen ko teg ci 12 ans yii te bokk na ci ñun ñi nga xam ne ci lañu daanaka xàmmee ci wàllu média et gis nañu ne ni ñu sonalee askan wi kenn benn régime xëy na bu jàll wu ko woon noonu askan wi donc mhm. euh, bu ñu dee lii nañu duut baaraam ci li nga xam ne tey ji moom la ñu def te kan mooy seen candidat mooy Amadou Ba xëy na ci ni ñu ko mën a xalaatee parce que ñu bari ci ñoom xëy na moom la ñuy fësal donte ne am na ñuy gor yeelam donc euh, li ñu mën a accentuer ci ci li ñuy wax moom mooy euh, nañu ko teg nale en attendant parce que 12 ans la ñu toog 12 ans de naqar 12 ans de souffrance 12 ans ci ñu ñu xoqatal et bu ñu tegee ne kii mooy seen seen bos nañu ko teg ne en attendant li jënt ji des ci kaw yooyu nag euh, ñu ñu ñu teg yeneen ci ay candidats nañ ci xool tamit ci candidats yooyu ñan ñoo ciy jéem a jàppal tànk euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy régime actuel bi ñu jéem a di jënd seen problème doog a dem nag ci candidat dëgg yi ci candidat dëgg yi bokk na ci euh, taas Thierno Alassane Sall ndaxte. Euh, euh, euh, nit la koo xam ne nii wala politiquement mën nañu mën nañu ne am na lu muy servir askan wi ci situation politique bu Sénégal xam-xamam nekk na lu ñu doyloo aussi candidat la boo xam ne c'est à écouter koo xam ne war nañu ko déglu la parce que mënul woon ñàkk bokkam ci li nga xam ne moom moo di ci élection yi parce que xorom am na ci xorom as tuut sum ciy dolli bokk na ci tey discours am am na yu mu souligner yu baree bari yoo xam ne nii xëy na moom euh, intérieurement xalaat na ni xëy na xobu sénégalais yi mënta gagné lépp ci premier tour wala ci deuxième tour sax mu jàll ci mais nag aspect bi mu mën a dolli ci wàllum euh, euh, mental ci ci sénégalais yi ak ñu préparer le jour des élections moom daal bokk na ci ñi nga xam ne ni tey jii ci levier bi ci politiciens yi ku ñu mën a séntu la mu dolli euh, euh, lenn ci sénégalais yi ci wàll wi nga xam ne moom mooy ci campagne am euh, et discours am tey déglu nañu ko discours discours bu radical la daanaka kàddu yu radical la la la génne te mu ngi préparé sénégalais yi mentalement ci ñu préparé wu ci le jour des élections du ñu def lu dul ne ko topp rafetlu nañu loolu. ci Thierno Alassane Ba Assane bi muy wax wàllum corruption sax daf ko def ak euh, en relation ak acte bi mu posé bi Ayoba doon fàttali bi mu nekkee euh, ca ministère euh, du pétrole cette histoire de bouton et de double bouton aujourd'hui <laughs> Thierno Alassane <laughs> bu wax bu waxee kàddu yu mel nii def ko au cœur de son programme tàmbalee ko si ay si ay discours de de de campagne am on se dit que c'est un candidat boo xamante ni lim ñu wax war nañu ko déjà bon objectivement si je dois parler de monsieur Sall Euh, euh, on sait que bi mu nekkee ASECNA am na yu mu doon bañ. Mhm. au temps de Wade. Mhm. am na yu mu doon bañ on a toujours raconté que dafa wàññi salaire am et cetera ci yenn montant yóbbu ko ci beneen montant bi ci principe bi ci li ñu jot a côtoyé ko et tout on sait que am na mhm. lu mu gëm. Euh, mës nañu waxtaan un peu sur des détails concernant nos ressources. am na lu bëri lu mu ci xam. Ah, loo xam ni quand même ku mat a suur la ku mat a bàyyi xel la waaye ah, man damay wax itam objectivement. il y a dix-huit candidats. nous sommes sur un plateau de télé. nous devons parler de dix-huit ou dix-neuf candidats. nous devons aborder les candidatures ka ci nekk ak contenu programme am one by one au-delà des des échanges au-delà de tout. En fait, là là on parle des candidats qui se sont exprimés aujourd'hui. Oui mais au-delà de tout nous devons mettre sur le même pied. Ah, quand tous les candidats ne sont pas exprimés. en campagne. Ah, li may wax ni c'est très important. mettons tout le monde sur le même pied. ñu mhm. traiter tout le monde en termes de contenu de programme et tout objectivement pour mhm. rester sur le cadran de presse. Mhm. au-delà nag de nos euh, tu vois un peu. damay wax fii benn affaire. Thierno Alassane est un candidat super intéressant hyper même intéressant tout comme les autres. nag reste à voir ñeneen aussi qu'est-ce qu'ils vont proposer sur le principe. ci kàddu ci kàddu. amul benn candidat buy taxaw ne la d'accord d'accord naa ci corruption. <laughs> benn candidat du la wax woy il faut corruption di am. il faut ñu jaay drogue il faut ñu kii ñëpp lay wax lu baax. Hmm. réew nag jikkoo yore. donc les pro les les programmes et les discours ay vœux pieux la. non ki am na koo xam ne li muy wax dëgg la ci moom. Hmm. bu toogee dana ko jëfee am na ñoo xam ne li wax dëgg la ci ñoom bu toogee dana ko jëfee am na am na am na waaye am na koo xam ne kan moo gënoon baax discours président Macky Sall en 2000. 12 quand bien même que nit ñi sóoruñu ko woon parce que ñoom ñëpp bokkoon di wax le même principe. Mhm. président Macky Sall mer gàddu la gàddu dem fële ca obélisque taxaw wax ba mu toogee jëf nan la jëfee donc aujourd'hui li gën a am solo jàpp naa man de ci sama tuuti waaye mhm. sama gis-gis moo ne au-delà de tout ci gëm-gëm la nu war a voter gëm-gëm nit ñi nga xam ne nag danoo gëm Ousmane Sonko leen leen ko gëmee dëgg ak ak engagement. du ma wax sax radicalité parce que radicalité souvent mun nga radical ba xëy mu jëntal ba dootoo radical donc du du c'est pas le terme c'est plutôt la sincérité <laughs> radical ba ah, PM waaw waaw la sincérité dans dans l'engagement mhm. mu nekk lu mesuré sachant que stratégie ngaa demee loolu la nit ñi toppee Ousmane Sonko ci lan ci réputation bu ñu xam ci moom mu wax ko la ko boppam mhm. ku gis dërëm bu ma mës lekk fa ma nekkoon kaay nga wax ko mhm. sénégal yi téye loolu gëm loolu loolu nekk lu compté à 75 pour cent ak la ca des ak la mu leen proposé ci idée et cetera. ñeneen ñi aussi ils von dire la même chose à un certain niveau am na ñoo xam ne mënuñu ko wax ba mu fës am na ñoo xam ne mënuñu ko wax. tous les autres candidats ils ont dit man dama xool sànq ñaari esquisse de programme ñaar démb xool naa bosu jommaay tuuti lépp a intéressant lépp a baax waaye boo faloo. Mhm. li ne si kaw. ak li ne si suuf lan ñu mën a wax ak lan ñu mënul wax ak na nga war a gérer. Mm-hmm. Sénégal ki kaa doxal à partir mois de mars bi incha allah bu ko yàlla falee avril bii faw mu nekk nag ku am pas-pas ak fulla ak fayda aujourd'hui on va voter comme il a dit par défaut parce que le candidat bi ma doon espérer man c'était Ousmane ko maintenant jomaay Faye lu tax may insister ne nañ ko génnee mm-hmm. mu wax ma dégg ma xam ban façon nit laa amal affaire c'est capital parce que je vais pas voter pour quelqu'un que je connais pas je veux savoir au-delà de tout il y a le projet mais le projet quand tu es chef d'État c'est toi qui décides that your business himself boo dee décider nag pour nation entière dafa laaj gis la dégg la miin la quand bien même ak lépp ñu mën ci expliquer c'est pas une association c'est un parti politique mm-hmm. qui a une lignée qui a une ligne on a besoin d'écouter la personne bi nga xam ne moom lay war a fal. Euh, d'ailleurs on dit que c'est le rendez-vous d'un homme. exactement avec le peuple. tey jii nii on ne prend pas rendez-vous avec euh, son mandataire Amadou Ba. ni avec Guirassy te ëllëg lu ci amit du ñooñu la ñuy. il est te moom moo war a donc impérativement sa libération. est-ce que ngeen di wax nii le président Macky Sall xam ak CNRA ak ñoom Babacar Diagne kii ba tax ñu xañ ko temps d'antenne. buñ ko bañ jàkkaarloog euh, sénégalais yi bañ aussi mu am comme li ngeen di wax nii am ñenn ñuy am doute ci moom que est-ce que euh, homme d'État est-ce que bu ñu ko falee. non non non man man man man j'espère que sénégalais xam nañ Diomaye quoi. seulement Diomaye sous la jore euh, bandoulière candidat. voilà boobu la Sénégalais yi xamagul. kon su beeg yeneen voilà Diomaye candidat à la présidence bon Diomaye secrétaire général du de Pastef xam nañ ko. Euh, Diomaye numéro 2 de Ousmane ko on connaît. Mm-hmm. mais Diomaye candidat à la présidentielle xamuñu ko te loolu noonu président Macky Sall moom bu ñu dugalee ci loolu. Mm-hmm. dañuy voté joomaay ba pare nag mettre Diomaye ci marquage à la culotte boo xamante ne bu bu ko neexee tourné nañu mais yéen man maa leen ko waxoon. alors mm-hmm. luñ ci bët. bu boobaa. alors on, on doit élire la personne bi nga xam ne ñu war a diriger au moins pendant mille huit cent vingt cinq jours. Euh, si dix huit dix neuf personnes yoo xamante ni euh, profilé sànq ba léegi ñu ngi si tudd tudd nañ si Amadou Ba Bassirou Diomaye Faye euh, Thierno Alassane Sall lañ mujj a tudd Déthié Fall qui depuis hier aussi est en train de de, de le tour de Dakar de même war a dem fële ca ca Mbour jàpp Fatick. aujourd'hui dans ce si discours am diggante démb ak tey démb lim ñu gën a wax bokk na si emploi des jeunes muy question boo xamante ne revenir tout le temps euh, Mame Boye euh, nous parle de trois cent soixante je pense su ma juumul euh, mille de d'emploi yu mu bëgg a créer donc